di ñëw ci kër gi di sàcc xale bi xàmmee na ko mu ñëw fii démb parce que démb dañoo amoon dëj ma xëy dem ci dëj ba sama doomu mag gaañu ñu dem ci dëj ba ñaari magam yi dañoo liggéey woon ku ci nekk maa la woo téléphone wax la dese bi fa ma fekk mu nekk ci kër gi di taal añ papaam nekk fi bi mu toggee añ ba pare papaam ne ko maa ngi dem dëj ba bàyyi ko fi moom mu génn dem ci suñu dëkkandoo yi nee fa la nekk ba magam bu góor bi liggéey woon wàcc bi kooku wàccee ñëw mu ñëw ci kër gi di ko xool ba xam kooku añ na léegi kooku añ sangu ba pare ne ko kaay tëj buntu kër gi damay dem nee na génn nee na bi magam bi génnee mu ne a ah, xaar ma fay télé bi kon delluwaat fi ma doon waxtaanee nee na ci la tourné gis waa ji taxaw ci ginnaawam mu ne ko eh, yow yaa ñëwaat suñu kër nee na mu ne ko ah kon xàmmee nga ma mu ne ko xàmmee naa la kay mu ne ko xaaral su ma defee noonu sa ndey rey la dootoo ma xàmmee. kon da nga da koo bëggoon a ah wa intention rey ko kay la am ndax xam nga ne ku jël ba ma ko ci néeg xaw ma essence la ko sotti xaw ma diluant la ko sotti taal néeg bi ba pare caabi ko ci caabi ji yóbbu ko loo bëgg lu dul mu dee ray ko rek la ci jublu hmm. kon donc yaa ngi naan ray ko la ci jublu woon kon cest à xale bi mucc na. waaw mucc na mucc na. situation lakk-lakk bi expliqué lakk na lakk na loxo yi lakk na ak ci kanam gi mais yàlla def na sutura ndax koo xam ne dañoo taal néeg tëj la ci soo génnee di wax ni di nettali nit ñi di dégg rek dañuy sant yàlla. dañuy sant yàlla boo nee loxo bi lakk na kon da doon jéem a génneel boppam. waaw da doon jéem a génn nee na nee na bi mu ko tëjee da doon fëgg bunt bi di yuuxu pour bëgg ñu dimbale ko. jàpp ne ci loke bunt bi gësam ko ba loke bi bunt bi mu yuuxu ci la dëkkandoo yi dégg yuuxu yi ñu daw ñëw gis fumée yi di génn ci lañ dajji bunt bi. mu daanu ci biti raam génn dëkkandoo yi ñoo ko jël yóbbu ko hôpital après man ñoo ma woo informé ma ci laa doog ñëw. mu nekk lu doy waar de. lu yéeme lu yéeme. ndax nag euh, buñ nekkee ci réew ñu ne réew mi am na sécurité lu toll ni ñeenti yoon kenn nit di ñëw ci benn kër à chaque fois bu fa ñëwee sàcc dara dem njëkk na fi ñëw sàcc fi ñetti téléphone dellusiwaat sàcc ñaari téléphone ak mbuusu jesner bu def 29 mètres dellusiwaat sàcc téléphone xale bii mu def lii tey samedi bële passé la njëkk a ñëw bi mu ñëwee xale bi gis ko mu menacé ko ak paaka bi xale bi yuuxoo mu daw cëppeelu dem ci laa ko wax sama frère sama frère bi semaine bi yëpp ci kër gi lay fanaan mais ñëw fi démb mu xaar ba dese bi am ñu dem ci dese bi ci la profité ñëw def. nee nga sa frère bi semaine bee fii la doon nekk kon mu mel ni kuy def lii dafa xam exactement seen euh, plan. man kay vraiment man je me ne est ce que dëkkul ak man wala mu am bokk koo xam ne mi ngi dëkk ak man di ko di ko informé ci man parce que heure buy dugg ci kër gi day fekk duñ nekk ci kër gi heure bu fi dugg di fi sàcc dina calculer ba xam ne kenn nekku fi toujours noonu lay demee xaw ma dafa dëkk man di ma surveiller boppam xaw ma nit a koy informer muy am information ci kër gi pour mën a am accès ci kër gi. waaye lu weesu sa doom ju lakk lakk boobu métti sax néeg ba dara desetu fa néeg bi dara desu fi lépp lakk na ba jeex yére yeeg dàll yeeg lépp lakk na ba jeex sama doom yi seen diplôme yëpp lakk na lakk na ba jeex. ci lan bëgg a sàcc ci bëgg a moom kay est-ce que sàcc la doon wut moom kay bi yoon bakkan la doon wut bi yoon kay yemul ci sàcc rek bakkan la doon wut. tey ban message ngay lancé à l'endroit des autorités puisque yaa ngi koy wax sàcc bi am na boo xam ne sax ci période couvre-feu la guddi la fi ñëwoon bii tuur nag bëccëg ndar kàmb la ñoo def lu muy def. waaw li may li wax rek mooy ñu dimbale ñu Kër Massar li ñuy dund metti na ndax nag nit damay yaakaar ne boo duggee ci sa biir kër ak sa njaboot tëju war ngaa mën a mucc mais bu fekkee dañ lay fekk ba ci sa biir kër di la def lenn li fooy muccee fooy rawee tey boo jàppoon sàcc bi dóor ko gaañ ko yoon ñëwee dal ci sa kaw ne la waroo koo gaañ te sàcc bi nekk dañoo nekk couvre-feu 21h man ñimeewu maa génn sama buntu kër parce que bu ma génnee ñu jàpp kooku mën a dox ba ñëw fekk sama njaboot sama biir kër di leen menacé ak paaka léegi loolu nan lañ ko mën a tuddee ana ñi nga xam ne nee ñoo ñuy sàmm ñooy sàmm suñu kaaraange keroog bi mu ñëwee menacé xale bi ak paaka bi ma demee gendarmerie loolu laa leen ko waxee ma ne leen yéen seetaan sàcc baa ngi baagante di dem di ñëw balaa ngeen di bàyyi dafa rey nit sama kër yàllaa ci def sutura mais kii rey la doon wut. léegi nag man su ma jàppee sàcc bi fajal sama bopp ñu ne ma waroo fajal sa bopp sàcc bi bu ma jekkoo rey ma wala mu rey sama doom maay perte ci ban réew lañ nekk. moom nekkatul ci kaaraange parce que wax na ne nit ki xàmmee naa la te kooku itam xam na ne xale bi xàmmee naa loolu moom ma gën a tiital xale bi fi mu ne nii kaaraangeem parce ne nii non seulement dafa dafa dafa traumatisé wu. mais nekkatul ci sécurité. parce que ku ne nit xàmmee naa la mu dugal la ci nekk taal la nga rëcc leer na la ne kooku dina dellu si waat parce que dina xam ne ko ñun xamuñu ko mën na ko gis gaañ ko mën na ñëwaat ci kër gi fekk ko moom kese gaañ ko yenn heures yi waaye mu mel ne xale bi moom léegi ci état couvre-feu lay ne même ci journée sax mënul génn du génn parce que ki fekk sa biir kër di di 16h 17h def la nii kooku soo génnee bëccëg dajeeg moom nu mu lay def wax dëgg yàlla doy na waar métti. sàcc bi dafa mel ni moom dafa dafa dañ ko ne yow ci kër yii nga dëkk. xaw ma ndax c'est accès bu bu facile bi fi am moo tax ndax day case escalier bi lu mu parewul day ñëw tëb fii dernière fois bi ñu ko yuuxoowee si case escalier bi la tëb ko gis bi foofu lay ñëwee yéeg facilement dugg si kër gi. mu nekk daal loo ko xam ne jaaxal na leen ndaxte koo xam ne xàmmee na wax na itam diw yaa def li waa doy na waar trop instant bii ñun déjà avant muy def lii sax boo tëddee guddi doo nelaw lu yëngatu si biti da ngay jàpp ne moom moo tabaat ñëw si biir kër gi wala dara parce que tellement nu mu fi ñëwee léegi moo tax chaque jour presque day tëb si biir kër gi boo tëddee doo nelaw da ngay xoole ba bët set. da ngay dem liggéey sax am problème parce que lan soo xel mi du dal amoo ay nelaw yu doy mooy loolu instant bi ñëpp a perturbé wu ñëpp a tiit. mënees nañu wax ni euh, c'est l'effet de trop en fait. ah bii moom dafa dafa dafa jéggi dayoo. bii moom c'est autre chose ndax man mun naa comprendre nga ñëw ci biir néegu kër nit nga sàcc li fa nekk yëpp dem ñu ne sàcc bi ah daa ñëwoon si kër gi sàcc na waaye yow nga ñëw nit ki gis la nga ne kon xàmmee nga ma nga jël ko taal ko si néeg lii moom beneen affaire la xaw ma sax nan lañ koy nan lañ ko mën a tuddee au fait xaw ko. kàddu bu mujj bi lan lay doon. bon kàddu bu mujj bi. ñaan autorité yi rek ñu yokk sécurité ci dëkk bi parce que lii nii yëpp insécurité la. ndax jotul sax c'est une occasion ndax quartier bi di woote nit ñi tamit mu am ay comité de quartier gi genre parce que tey bu dee gendarmerie yaa ngi koy wax mënu la motal yéen nii bon askan bi tamit ñoo am nañ seen rôle jouer par rapport à ça. waaw bon fii amoon na ay gardien ka koñ bi dañu defoon ay gardien di leen fay chaque fin du mois kër gu nekk nga joxe 2000 2000. ñu gardien yi ñoom ñu xool nañ lañ ko kiwee seen biir mais dañoo dem ba ci fin bi ñu fi dëkk si boppam rendre compte que ne gardien si boppam ñooy sàcc xam nga loolu tamit beneen affaire la parce que mun amuñu moyen pour dem ci société de gardiennage jël fa ñoo xam ne mooy loolu ñii nga mën gis si koñ yi ñuy porté wu volontaire ne ay gardien lañ ñooñu nga mën a recruter ñoom ñu defoon fi seen groupe ne ay gardien lañ di garder fii nii mais bizarrement kër yi nii taxawal si koñ bi vol yi ci si koñ bi fii nii nga laajteg ban kër lañ musul sàcc kenn bu la nee man keneen du la ne ak man fii yëpp dugg nañ fi kër yi yëpp sàcc yi dugg nañ fi te loolu ça fait des années ñii ñëpp ku ci nekk sa plainte moo ngi gendarmerie ba. sa comme lu ma la wax rek. ñu yokk vigilance ñu yokk effectif bi fii Kër Massar gendarmerie bi s'il le foo ñu defar ñu police comme ça ñun du moins sax bu euh, nu mu traité effectifu force de l'ordre yi bu kiiwee ñenn ñiy def yenn ñaawteef fii dinañ xaw a sax xof.